بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي نبي سنسن برام سبحانه وتعالى نوغي كوي باك ديكو كني di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi di julli di sëlmal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم mbokk yi ñu ngi santaat sunu boroom bi mu nu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu fàttaliwaat sunu bopp fàttaliwaat mbokk yi jubluwaay yi nga xam ni am nañ ko ci bind yi ñuy def xam ngeen ni doomu aadama léeg-léeg danay dox ci yoon ba mu yàgg mu fàtte fa mu jóge mbaa mu fàtte fa mu jëm nit danay dox ci yoon ba mu yàgg mu fàtte it la ko taxoon a jóg nit danay dox ci yoon ba mu yàgg ay fitna dikkal ko tax mu suppi aw doxiin yooye yépp nag bokk na ci li ciy dimbali nit ki mooy ñaari yépp nit ki di ko fàttaliku mooy fan la jógeeg fan la jëm ak lan la bëgg bokk na ci jubluwaay yi nga xam ni am nañ ko ci bind yi mooy tooyal sunuy xol ci yëg ni ak defaru dëgg mi ngi nekk ci wala bokk na ci bopp xool ñu njëkk ña nga xam ne ñoo njëkk a nekk taaliba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ doon dundee nga di ko dundee moom la imaamu Malik imaamu daaril hijra doon wax li mujj ci xeet wi day duñu defaru lu dul la leen defar mooy la defaroon xeet yu njëkk ya ñu ànd xam ni nettali ci boppam dafa am force bu mu am di ko def ci xolub aji gëm yàlla ndax kii nga xam ne àddina yi kese moo ko yitteel suñ koy nettali yëfi àddina yi da koy jox yitte lool saa saa sax nga gis ko ca jooy kon ki nga xam ne mbirum diine moo ko yitteel foog naa ni kooku buñ koy fàttali saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu baax ñu foor ñu sell ñooñu seen ngëm yàlla ga dam kawe woon leen yàlla ko bu yonenteem jaraloon sacrifice bi ñu defoon ngir am ngërëmal sunu boroom yëkkati seen alal di ko joxe te am ca aajo di tuur seeni deret te ku ne xam ne ne loolu métti na di génn ci seeni dëkkuwaay dem ci dëkkuwaay yu ñu miinu teg tumuranke mën na caa topp yooya ak yeneen ak yeneen laa shakka da nga xam ne ñii kat yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana lañ doon wut mooy sunu borom gërëm leen te yàlla def na ko radiyallahu anhum wa radu anhu nu fàttaliku mbokk yi ne nun kat bu ñëwee ci seen gannaaw ameel nañ leen njukkeel ci di leen ñaanal waaye di fàttaliku seen dund suñu bëggee defaru wala suñu njaboot defaru faw ñuy waxtaanee ñooñee seen dund ndax am na ñu ñuy waxtaanee seen dund ñoo xam ni laa shakka ni ñu baax lañ waaye segam seen dund moo mën a def jeexintal ci xol yi kon fa kay fa ka ñeneen gën a baax muy saxaaba ya buñ defoon waxtaan ci seen dund inna fi qasasihim la ibra laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab kon nu yëg ni qissa ci boppam di ko nettali dafay am lu muy dëgëral ci xol ah sunu borom mi ngi wax yonente wa kullan naqussu alayka min anbaai rusul ma nusabbitu bihi fuaadak nettali yi ñu lay nettali ci alquran ci nettali yi dund yonent yàlla ya ngir dañ ciy dëgëral sa xol saxaaba yooyu nga xam ne dañoo bàyyi woon seen lépp ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngërëmal suñ borom jaral leen lépp gis nga ku jël kenn ci ñoom di ko copier ci sa dund da ngay xam ne nun kat wax dëgg yàlla seen nan yoon waaye dese nañ aw xel wu rëy beneen bi ci topp mooy jamono jii nga xam ne jamono yi fitna la nit daanaka dafay dem ba dootul xamati fu muy teg ay tànkam delluwaat ci na saxaaba ya dun dundee ci jàpp seen morso njàmbur ci gëm yàlla ci moytandiku lépp loo xam moo mën a yàqal nit ki loola ku ca góorgóorlu te dimbali koo yàlla faqad hudayta ila siratin mustaqim jaalana allahu min haula tey ñu ngi tànn kenn ci saxaaba yu sell yu baax yooyu muy alsaxaabiyul jalil julaybiba radiallahu anhu wa ardaahu wa an jamii saxaaba ab saxaaba ngi mbokk yi boo xam ni siiwut de fii ci adina waaye wa huwa inda allahi azim ku foor la fa sun borom yàlla subhanahu wa taala ab saxaaba ngi boo xam ni siiwut de waaye ku foor la fa sun borom yàlla subhanahu wa taala ab saxaaba ngi boo xam ni ñu bari de konti wuñ ko woon ndax ak doyadeem ci wàllu àddina waaye ku am martaba yu kawe la fa sun borom foofu nag fi ngay daal di yëgaatee ni laysatil ibra bima yaxkumuhu nnaas mbir mi dëgg dëgg dëgg nekkul ci nit ñi ni ñuy àttee diw moo bokk diw bokkut diw moo avancé diw dafa arrière yooyu àtte ñuy joxe ibra bi néew ci waaye ibra bi mi ngi nekk ci ki nga xam ni sunu borom yàlla considéré na la yow mbokk yi jullit yi ñu xam ni yàlla day subhanahu wa taala def na ni saxaaba yonent bi koo ci jël rek ak dundam am na bind yu tooy xëpp ci wàllu defar luñ ci mën a jàng loo xam ni amaan na bokkulewu koog morom ma yonent bi alayhi salatu wasalaam ci xadis boo xam mi ngi ci sahih muslim abi hurayra soloo ko dani inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum yëg leen ni sunu borom yàlla day seen melokaan yi ni ngeen mel kii daa rëy kii tuuti kii njool kii gàtt kii xees kii ñuul kii nangam déedéet du yàlla loolu lay xool yàlla it du xool seen alal yi ndax bari na ngeen alal wala déet waaye dafay xool xol yi wa amalikum ak jëf yi kon nit bil mazhari zahir ci gisab biti mën nga koo doye di lool mu tuuti fa yow fekk ku rëy la fa sun borom yàlla subhanahu wa taala mbokk yi tey ñu ngi ànd ak saxaaba boo xam ne lu mel noonu daf koo dal moom day laa yamliku jamaal al xilqa bu dee taar bu ñuy xool ci nit ba di ko xemem moom de sunu borom dénk ko woon lakin yamtaliku jamaal al xuluq waaye nag boo ubbee biir ga fekk mu réer jikko yu rafet yoo xam ne sunu borom ak ko dénk innahu laysa jamil al mazhar ab saxaabaa ngi boo xam ne bu dee mbindam bitti boo ko xoolee dëgg la ci àttim nit ñi dañ naan rafetul walakinahu naqiya sarira yaxmilu imaanan fi qalbi ku set wecc la ci biiram waaye mi ngi yenu li nga xamante ni mooy imaan ci biir xolam boo xam ni dafa dëgër comme ni ay doj di dëgëree ci suuf si ab saxaabaa ngi boo xam ni ci waa lansaar la bokk te bokk na ci ngëneeli waa lansaar mbokk yi yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam doo gis benn waay boo xam ne dafa bëgg waa lansaar te bëgg googu sax ci xolam ba mu faatuwaale ko lu dul day fekk ni yàlla bëgg na ko subhaanahu wa taala doo fekk kenn koo xam dafa bañ waa lansaar te bañ googa dañut ba mu faatuwaale ko lu dul dafa dajeeg sunu borom sunu borom bañ ko subhaanahu wa taala loolu ahmad génn na ko ci musnad al imaamu tabarani génn na ko ci al jaami al kabir mbokk yi nattukaayi doomu aadama yi day daanaka dafa wuuteeg nattukaay yi suñ borom ndax doomu aadama day dana nekk koo xam ne ku doya dal la ci nit ñi waaye fekk na mbokk yi ku rëy la fa suñ borom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na di nga gis benn waaye ci bis gisab biti da nga koy xeeb ci ay yëreem da nga koy xeeb ci ay jëflanteem da nga koy xeeb ci ab am amam da nga koy xeeb ci ab dëkkuwaayam da nga koy xeeb waaye nee na waa jooju cellaangeem yegg na fa sun borom ci bu giñoon ci benn mbir ni yàlla defal nangam sun borom defal ko ko law aqsama ala allahi la abarra mooy am nag may ci sun borom fi mu nekk nii bu nit ñi tolloon ci soxla taw bu sujootoon ni yow yàlla giñ naa ci yow tawalal sa jaam yi léegi léegi léegi léegi yàlla taw taw ba mu tooy xepp xam ngeen ni am na ci saxaaba ya ci jaami yàlla yu sell yi ñoo xam ni martaba jooju lañ yore koo xam ni law aqsama ala allahi la abarra gis ngeen barra ibni malik moom moo ci gënoon siiw nag moom bokk na ci ñi ci gën a siiw am na ñeneen ñu mel ni moom ci ginnaawam ku mel ni ñoom uways al qarani ak ñeneen ak ñeneen ci ñoo xam ni seen ak cellaa nga yegg na ci loolu mbokki jullit yi ñu ànd xam ni am na ñoo xam ni seen ak farlu ak seen ak góorgóorlu ak cër bañ am fasun borom wallahi nit ñi dañ leen di gis ñu xeeb leen te loolu maa ngi ciy profité bu baax a baax a baax mbokk yi ab julit du xeeb mbokkum julitam ndax xamoo jan martaba la nit ci am fasun borom gis nga ay nit danañ tolloo sàppe di julli fekk seen diggante ñoom ñaar ci ay martaba mi ngi toll ni diggante asamaan ak suuf gis nga nit di nga ko gis nga xeeb ko lool joxoo ko benn cër bu sun borom muri woon kiiraayu kumpa wan la ba nga xam wallahi da nga xam ni mbir yi nekkul ci al madharul jamil wal malbasul jamil wal maskanul jamil déedéet mbir mi nekkul ci kër gu rafet warwaay bu rafet yére yu rafet waaye mbir maa ngi nekk mooy ñu considéré la inda rabbil alamin mbokk yi saxaaba bi mi ngi tuddoon julay biiba alsaxaabiyul jalil julaybiba radiyallahu anhu wa arda julaybiba dafa tuub génn ca ceddo ga comme ni ko moroomi saxaaba yi defee dal di dugg ci lislaam waaye bi mu duggee ci lislaam bokk na ci liñ ko mën a fee fësalal bari ak julleem bari ay wooram bari lu muy jàngal quran tey tudd yàlla ba pare taxoog yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam def ko sëriñ def ko kilifa jamono jooju nga xam ne nit ñi suñuy natt ñoom ña ngay natt ca kawewaay ba palaas ya diw mooy diw diw siiw na ñépp a ko xam fekk mbir yi demewut noonu mbir yi demewut noonu bariwaana koo xam ni nit ñi dañ koo fullaal ci kaw suuf wallahi alaxira bu ngeen fa dajee rek nga nga nga nga xeeb ko nga yéem ko ibn alqayim rahimahullah dafa ne gis nga yowmal qiyam bu ñuy peesee duñu peese jëmm yi waaye xol yi la ñuy peese moo tax di nga gis benn waay boo xam ni jëmm ja nim meloon ci kaw suuf ah bu nu ko peesee fa sun borom du tolloog laafu yoo yàlla sun borom musal lu ci loolu waaye nga gis koo xam ni ku xeebu la ku xeebu la waaye buñ ko peesee lee fa sun borom rek nga daal di koy naw nga daal di koy bëgg mbokk jullit yi ñu ànd xam ni mbir yi kat mi ngi nekk ci jikko yu rafet yi ak am cër fa sun borom ak nekk nit ku sell ak nekk nit ku baax julay bii baa mbokki julit yi yàlla daf ko na toowoon natt bu yéeme benn dafa gàtt ñaar dafa ñuul ñett daanaka xar kanam gi taar amu ci ñeent daanaka dafa xaw am sax ay picc xam nga am na xeeti picc yu rëy yu mel ni ay genre tut yuy dal nit xoolal yii daje yépp xoolal yi daje nun fi mu nekk nii nun ñii fi ne nun ñii waxaguma saxaaba ya dama ne nun ñii laa wax gis nga koo gis mu am ci nattu yi lenn rek daanaka yow da nga koy xeeb bu la ko yàlla deful yow da nga koy xeeb te fekk mbokk yi maanaam xeebaate bi ak yëkkatiwaate bi considération bi ak ñàkk koo def nekkul ci bind bi yàlla bind nit ki ndax nee nañ la lu teel yàlla du xool jëmm yi du xool alal ji ak li nga am ci ay moyens waaye li ñuy xool mooy xol bi ak sellaange gi ba léegi bis bu ne borom xam-xam yaa ngi koy leeral waaye dafa mel ni nit ñi masala moomu ci boppam mën a ko dugg seen bopp yi nit ñépp illa ma rahima rabbuk ci buntu boobu la ñuy considéré nit te xoolal boobu boobu boobu ñàkk ñàkk am yar ci sa digganteeg sa borom ndax wa rabbuka yaxluqu ma yasha yàlla mooy bind lu ko soob gis ngeen borom xam-xam yi الأعمش الأعرج الأحنف yépp ay xeeti tur la yoo xam ne kenn ku ci nekk kii dafa xuggi kii dafa rinki kii dafa façon feebar yu nekk yoo xam ne da ngay gis borom xam-xam bu mag amas borom xam-xam la ahnaf borom xam-xam la ah ñi ñëpp al amash al ahnaf al araj yépp ay xëy tur la yoo xam li gën a yéeme mooy koo ci xool borom xam-xam la boo xam ni kéemtaanu suñ borom la woon waaye borom bi subhanahu wa ta'ala mën naa nattu nit ci benn natt tànkeem dafa làggi loxoom dafa làggi wa illa ci ay cëram wala lenn fekk yooyu yëpp nattub sun borom la waaye dalika rajul ha aw dalik tilka al imraa daanaka inda allahi azim ku rëy la fa sun borom te aka bari nag mbokk yi lu muy am aka bari lu muy am loolu nañ ko def bind mu leer ci ñun bari waa na ñoo xamante ni ci ma al mazharu zahiri mooy melokaanu biti wi am nañ ci lu leen ci sun borom nattoo waaye boo seetloo am na lu leen sun borom may loo xam ne nit ñaa nga leen cay ñee te loolu mooy li faral di am ci lu bari julay bi ba mbokk yi bindin wii ko sun borom bind sabab la ci daanaka mën naa ne ñu bari xamuñu ko woon sax xamuñu ko woon mooy seetlu nga ni ñu baari daanaka duñu xam sax saw tur duñ la considéré léegi da ngay gis ni ci biir jataay yi ñooñu kenn du leen fullaal loolu mbokk yi bakkaar bu rëy rëy rëy la loolu lu rëy rëy rëy la doyadal wala xeeb sa mbokkum julit la léeg nga gis comme li ma doon wax suñu bind tafsir bii pass ci suratu abasa da ngay gis ñu mel noonu sax li ci ëpp da ngay fullaal ñi nga xam ne meluñ noonu ñàkkal fayda ñu mel noonu fekk déedéet da ngay mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nan la meloon benn bis julay bii baa day romb yonent bi ni ko yaa julay bii baa ala tatazawaj julay bii baa doo takk soxna julay bii baa daal di koy tontu di ko waaw wa man yuzawiju ni ya rasul allah kan moo may takkal soxna la maala wala ja man nit ñi kenn considéré wu ma te man awma ci dara alal kan moo may may jabar yonent bi sëgg sallallahu alayhi wa sallam julay bii baa continue beneen bis julay bi baa di romb yun saa sallam ni ko waaw julay bi baa yow da nga dul takk soxna mu ne ko yonent bi waxoon naa la man yu zawijuni kan moo may takkal soxna wala maala wala jaa man aw ma benn dayo kenn considéré wu man aw ma alal tous julay bi baa ci jàkk ji la doon fanaan fu mu dëkk sax amu ko allahu akbar mbokk yàlla mën naa natt te léeg-léeg da lay nattu fekk ma nga la dencal loo xam ne bu la ko waxoon yow da ngay bëgg a doon zalika rajulul mubtala kooka ñuy natt te ñetteelu fan ba yonent bi ni ko waaw yaa julay bii baa ala tatazawaj julay bii baa yow doo takk soxna mu ni ko waxoon naa la ni la man kan moo may soxna man ku ma soxlaal ba dee may soxna yonent bi ni ko man maa lay may soxna ana alladi uzawiju man maa lay takkal soxna allahu akbar gis nga yonent bi alayhi salaam ku considéré woon la ñi nga xamante ni am nañ lu ñuy yëg ah ci nit ñi di leen ko doyadel ak yu demee noonu daana ko def am na benn riwaaya sax boo xam ne yonent bi dañu ko waaw julay bii baa yow moom doo takk soxna anas ibni malik mu ni yonent bi dafa wax julay bii baa ni ko waaw yow doo takk soxna mu ni ko kan moo may may soxna mu ni ko man maa lay may soxna mu ne ko kon de nga am goro bu ñàkk solo allahu akbar kon yonent bi tey nga am goro bu ñàkk solo mu ni ko gayra annaka inda allahi lasta bi kaasi même boo ñàkkee solo ci nit ñi yow ñàkkoo solo fa yàlla subhanahu wa taala allahu akbar allahu akbar aka bari ci ñun ñoo xam dañ leen a ñàkkal solo aka bari ci ñun ñoo xam ne xadis bu abu yaala solo na ko ci musnad aka bari ci ñun ñoo xam ne dañu leen ñàkkal solo mu ne ko kon yonent bi tey nga am goro bu ñàkk solo mu ne ko même boo ñàkkee solo ci nit ñi te li gën a yéeme mooy nit ki waruñu koo ñàkkal solo ba mu yëg ko ndax li mu yore ci manqué manqué warul am beneen manqué manqué buy amaat boo xam nit ñi dañ ko koy xoolee moo tax gis nga yonent bi alayhi salatu wasalaam ci ay jataayam gis ngeen ko ci surtu abasa ci yeneen ak yeneen ak yeneen ginnaaw bi abasa wàccee suñu borom yedd ko ca lam ko yedd gis ngeen yonent bi ku considéré woon la nit ñu mel noonu am na kenn ci ñoom yonent bi da koo fekk ci biir marché bi muy dem yonent bi daal di koy ginnaaw daal di nëbb bët yi def ko nii comme ni xale yi fooyee noonu xam nga kon du xam kan la mu daal di wax ni kan moo soxla jaam bu ñuul bu dëgër ma jaay ko ko da daal di reetaan waa ji xam nga kon comme yonent bi wax na reetaan na xam nga bu nit ki boo ko déggee da nga koy xam mu xam ne yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam am na ñuy wax ne sax julay bi baam yi la ko yonent bi defoon sallallahu alayhi wa sallam kon da doon kaf aka ubbeeku aka jox cër ñëpp ala wajhi al umum waaye wa ala wajhi al xusuus ñi nga xamante ni am nañ tuuti manqué manqué beneen bi ci des mooy mbokk yi julay bii baa boobu benn la ci riwaaya yi am na ci yeneen riwaaya julay bii baa ci boppam saxaaba yi nanguwuñ ko woon a may soxna saxaaba yi nanguwuñ ko woon a may soxna am na beneen riwaaya boo xam ni julay bi ba ndeysaan daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw yonent bi man est ce que su ma tàbbee àjjana est ce que dinaa am ci soxna yooya fa nekk mu ni ko waawow àjjana ku fay dugg te daaw soxna amu fa mu ni ko kon fama baalu asxaabika laa yuzawijuunani ah allahu akbar yonent bi sëgg sallallahu alayhi wa sallam wax ju dal la est ce que su ma tàbbee àjjana dinaa am soxna mu ni ko waaw waaw boo tàbbee àjjana da ngay am soxna mu ni ko waaw yonent bi lan moo tax sa saxaaba yi ñoom duñ ma may soxna yonent bi ni ko ana alladi uzawijuka insha allah man mii maa lay may soxna jàpp naa ni man mii maa lay may soxna la muy lam njëkk a firndeel mooy doom jum ko may jum jum jur min sul bi mu fa nekkoon mu jox ko sallallahu alayhi wa sallam parce que lim doon jàngale toujours da ci doon jiitu waaye boobu fekk na gis ngeen ay doomam joxe nañ leen wa illaa boog boo amee ñu fa des ak guñ fuñ leen di joxe julay bi ba benn bis muy romb yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ko kaay julay bi ba daal di ñëw abi barzat al aslami nee na yonent bi saa sallam bi mu doon dund saxaaba yi dañ daan def ku ci am doom ju jigéen da nga ko koy gaaral saasaa lépp liñ ko doon def sax mooy ayim jigéen joo xam ni jëkkëram dafa faatu jigéen joo xam ni jëkkëram dafa faatu ci xare wala jigéen joo xam ni ah dañ koo wàcc xissa boobu ci nga gis xissa Hafsa yonent bi ñëw na gaaral ko Omar baayam ñëw na jaaral gaaral ko Ousmane gaaral ko Aboubacrine ñoom ñaar kenn nangu koo tontu fekk jamono jooju Aboubacar ak Omar Aboubacar ak Ousmane dégg nañ yonent bi di ca wax. ba omar ibn alxataab nee na mere naa ci osman ay fan nee na bi ko yonent bi takkee osman daal di ñëw ci omar ni ko man de seet naa fan yii da nga men da nga maa xaw a mere mu ni ko bañ a mere ndax lu toll ni suma doom ma di la ko gaaral fullaaloo ma ma ngeen miir mooy wax ak yow comme ni ko nit ñuy waxee mu ni ko booba daa fekk ma dégg yonent bi di ci wax te du ma siiwal secret yonent bi saa sallam loolu di nga ci jàngaat ci biir ni ndekete nit loo ko jege jege jege jege ngeen nekk mbooloo mën naa wax kii lum dul wax kee fiq bu am solo ngoo ndax mbooloo mën nañu nekk ak nit mu wax kii lii te wax ku kee kenn ki mer jàpp ne dañuy faralante fekk déedéet lu nekk ak ñoom concerné ndax ku ne xam ne ne martaba ji abubakar am ak ji omar am ñoom dañoo xaw a yam ci yonent sasan doonte abubakar afdaluhum waaye yonent bi nëbb na ko tey omar parce que mbir mi considéré gu ko parce que moo jur doom ji yooyu masala yu bay jar jar a bàyyi xel ay ruqante yu sew la yoo xam ni buñ koy seet dañ koy dimanikoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme saxaaba yi dañ daan def ku am doom bu jigéen rek boo xam ni mat ak mat naa sëy wa illa dañ koo wàcc wa illa borom këram dafa faatu wa illa borom këram dafa sëy ca xare ya mu daal di ñëw gaaral ko yonent sa salaam su ko defee yonent bi ci boppam daal di ko koy mayeel su ko yonent bi bëggee moom jël ko pour soxna wala mu daal di ko koy mayeel ndax xam ngeen ni yonent bi kaana yaarifu aqdaara rijal bu dee da ngay tànn rek tànnal sa sa doom borom kër ah yonent bi saa salaam moo la gën a xam fuuf nit ñi ak martaba yi ñu toll ah ndax njiit la muy xam ca ñamu jiite ku dul njiit du ko mën a xam benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko julay bi baa laajee ni ko waaw man ndax bu ma tàbbee àjjana dina am soxna mu ni ko waaw waaw aka ngay am soxna mu ni ko lan moo tax sa saxaaba yi ñoom nangu ñoo may soxna yonent bi ne tekk ba mu yàgg mu ni ko man maa lay may soxna innahu rajulu salih julay biiba radiallahu anhu yonent bi ni ko demal kër diw sallallahu alayhi wa sallam ni ko demal kër diw boo demee mu may la soxna demal kër diw soo demee mu may la soxna nga ni ko yonent bi moo ma yabal nee na daa soxla seen doom pour soxna julay bi ba départ daal di ñëw ci benn kër ci waalan saar daal di koy wax ni ko yonent bi day mooma yabal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi nee na dafa soxla seen doom ji soxna fa kaada rajul yatiru min shiddati alfarax xaw tuuti kon rek waa ji ni bërit naaw ndax kontaan ndax xam ngeen ne yonent bi bëgg sa doom moom daanaka loolu moom jar na lu ne ci kontaante mu ne ah fa marhaban bi rasulillah kan moo mën a am goro bu gën a foor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julay bi baa ne ko wutalu ko boppam de man la koy wutal ah bim ne mën na koy wutal mu mel ni taal bu doon bérex bérex yi nga ni fa pof siom ndox allahu akbar nit moo gaaw ci soppeeku nit moo gaaw ci soppeeku waa ji mi ngi kontaan bay waaja naaw ndax kontaan wutalu ko boppam man la koy wutal waa ji mel ni taal bu doon tàkk rek nga jël siwam ndox rek ni ko ca pëf daal ni ah waa waa xaaral tuuti xaaral tuuti ma wax ak yaayam ba xam xaaral tuuti ma wax ak yaayam dugg ci biir daal di wax ak soxnaam ni ko ah yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam moo yónnee ni daa bëgg suñu doom mu wax lu mel ni jëkkër ji wax marhaban ci goro bu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko déet defal ndànk yonent bi julay bii baa la koy wutal mu ne ko julay bii baa man wallahi laa nuzawiju julay bii baa abadan foofu mbokk yi war nañ fee am ay waqafaat ginnaa ci yàlla ni julay bii ba mukk la amrullahi la uzawiju julay bii ba ginnaa ci màgg ak yàlla ni julay bii ba duma ko may soxna mbokk yi alwaqfatu l ula mooy jamono ju sellee noonu ak nit ñu baaxee noonu ñu dul saxaaba ya saxaaba yaa la gën su fekkente ni ñoom ñoo mën a am problème bii wala ñenn ci ñoom ndax du ñëpp du ñëpp saxaaba ya lu teg mbaax ci ñoom nga koy fekk waaye lii ay benn benn lañ ci biir saxaaba ya moo tax borom dañuy tekkale ni as saxaaba ala wajhi al umum ku dul saxaaba saxaaba la gën kon saxaaba ya ñoo gën ñu dut ñoom waaye nag ci biir saxaaba ya sutante nañ ay daraja ci biir daraja yooyu da nga ci gis koo xamante nii nag moom taxut koo demee noona kon julay bi baa daa tombeeg waa ju mel noona jàppal loolu nga jàpp gis ni kon ñun ci suñ jëmmi bopp su dee feebar la kon nun nooy gën a feebar su booba ñaareel bi mooy bariwaa na ci ñun ñoo xam ni yàlla xam na ne li ñuy wax ci seen làmmeñ yi ak lan fas ci seen biir xol yi bokkul déedéet ndax bu dara disut lu dut jëfe njàngale yu mel nii ak la saïd ibn al musayib defoon ak ñeneen ci saxaaba ya kibaaru taabiin yi nga xam ni ku am ay moyen ñëw na pour bëgg sa doom nga xañ ko ko jox ko waajoo xam ni amul benn moyen ah mbokk yi loolu yombatul de loolu yombatul de borom xam-xam yaak ñu dut borom xam-xam yaa ci yam waxuma amul de yombatul laa wax yombatul laa wax kon mi ngi am pourcentage bi néew beneen bi ci des mooy ndax jullit yi duñu bàyyi xel waa ji ak ni mu amee woon martaba fa suñ borom ak dayo ja mu am te nit ñi xamuñu ko ba tax yonent bi naa ko yow nit ku ku ñàkk solo fa suñ borom est-ce que nit ñi duñu jéem ci ñu mel noonu góorgóorlu ci ñoom wa amal waqtatu rabia gis nga ni muy amee ci jigéen ñi noonu lay amee ci góor ñi ni muy amee ci jigéen ñi ci góor ñi noonu lay amee ci jigéen ñi léeg-léeg nga gis koo xam ni li ko teree am soxna mooy dafa amul dara wallahi loolu mi ngi am suñ société yi dafa amul bu amoon léegi ñu may ko soxna ak nu mu mën a mel nag su amoon ñu may ko soxna moo tax léeg-léeg nga gis koo xam ni am na soxna da ngay xam ni kii daa amus tuut rek moo tax mu am soxna xaw ma loolu léegi leer na wala déet léeg-léeg nga gis ñoo am soxna da ngay xam ni ñii dañoo amul stuut moo tax ñoo am soxna waaye bu ñu amul woon stuut ñu classé leen fañ classé ñu ca des wóor na ni kon kii rek li ko li ko nit ñi war a dàqee am am bee ko ko nëbbal am am bee ko ko nëbbal moo tax jamono yi am am dañuy wax ni mënoo xàmmee ñi la sopp ak ñi la sopput ndax ñépp lay topp beneen bi ci des mooy ci jigéen yi kadaalik ndax ni góor ni góor di di di di gisee ji ji jigéen joo xam ni xëy na sax góor ñu bare bare bari falan ko bàyyi te léeg day am suñ société yi yàlla xam na ni léeg-léeg nga gis jigéen ñoo xam ni ni ñu jàmbaaree ni ñu mënee jaamu yàlla ni ñu mënee woor woori sunna ni ñu jekkee ci am ay boroomi kër te góor ñi duñ leen nangoo takk dara waralu ko nag lu dul ma wax ko te gën a gudd fan mooy dañoo amul taar góor ñaa ngi nii noo ngi nii bari waana moos ay jigéen yoo xam ne li may wax nii du lu ma dégg du luñ ma nettali du lu ma liir ci téere lu ñu gis la am na benn muhaadara bu ma musa def université bi ma pare kenn ci soxna yi daa jël kàddu mu ni teyit nga boole ci gone yi rek la ñuy takk rek bàyyi fi mag ñi fi yàgg ci daawa bi ma ne ko wax nga dëgg ma ne ko wax nga dëgg wax na dëgg de ma ne ko wax na dëgg ndax dëgg moom léeg-léeg day métti waaye lu métti métti nangul rek ñu bare bare bare bare bari ñoo xam ni ah daanaka duñu am borom kër lu tax dañoo amoon jëkkër seen jëkkër faatu góor ñi soxlaatul leen wallahi rabbil alamin li leen gis ñoo xamante ni am nañ jëkkër ba noppi seen jëkkër daa faatu wala dañu tax wala dañu nangam man ngaa tànn ña nga tànn ci ñu ko amul fekk kii gën na leen téeméeri junni yoon léeg-léeg nga gis koo xam ni dafa sëy ba noppi yore ay doom doom yi mu yore moo tax góor ñi nanguwuñ koo jël loolu mi ngi am moo tax dinaay wax jigéen ñi gis nga ku fi sëy ba yore yi doom buñ la takkee rek xamal ni as tuut sa nga yore wala miiras man yaakaar ca yow a tax li ëpp laay wax li ëpp li am góor ñi kay dañ lay topp parce que sa borom kër bàyyi na la kër ñu di la topp parce que sa borom kër am na tuut su mu fi bàyyi ñëw fii bëgg ku ko ku ko ku koy lëfinal waaye laa boog nga amub taar ñu topp la ngir taar ba waaye jigéen joo xam ni sëy na ba noppa comme ni ko yonentu dafa ak saxaaba yu baax ya nga xam ne da ngay nangoo fekk jigéen joo xam ni am na borom kër ba ami doom mu wóor la ni bu dee àddina yi kese nga cay wut amu ca mbaa bari wut ca bopp nga jël ko loolu bari wut lu muy am de te loolu feebar bu rëy rëy rëy la beneen bi ci topp mooy kadalika noonu ngay gisee ci jigéen ñi ah góor mën naa ñëw di leen labat goo xam ni wóor na leen ni ku ragal yàlla la ku baax la ku mel nangalu ñu delloo ko fekk dara taxut ñu delloo ko lu dul rek nam mel daa melut nañ ko bëggee waaye laa dafa amutus tuur dëgg la nit ñi mën nañoo am ñu feebar waaye yow bu ca bokk yow fexeel bu ca bokk kenn ku ne ci jullit ñi dëgg la lii may wax nii munul ñàkk fii ba àddina tukki faw mu am ay nit yu ni mel waaye problème bi sax ñuy wax mooy yow bu ca bokk ndax suñ ne càggante am na nangul ni càggante am na ci société bi waaye yow bu ca bokk yow tey jii am na ñu bare bare bare bare ci ay jigéen yoo xam ne ñu ngi toll ci am borom kër te li gën a yéeme nag mooy da ngay gis ñoo xam ne yàlla xam na ni fitna jooju dana àgg ci ñoom ba mën nañoo dem mooy yàlla loolu mi ngi am de loolu bu yeboo su ngeen ko xamul woon na nekk xam-xam bu bees tey am na ñoo xamante ni toll ci am borom kër war ko am mënuñu ko am am nañ borom kër ba pare wala illaa musuñu koo am egg na ci ñoom dañuy dem ba njaalo lu waral loolu parce que fitna dikkal na leen te duñu génn fii di mooy seen borom ñi ngi toog di muñ muñ nañu muñ ba seytaane man leen donte lañ def bon na waaye julliti yàlla yi am nañ ci responsabilité de bu rëy moo tax dinaa dégg sama cheikh bi abu ishaq al xuwayni xafidahu llah wa zaadahu sixa day xox yu am solo nee na façon bi gën ci kafaalatul yatim mooy nga takk yaayu jirim bi loolu nag xëy na nit ku kalima boo xamante ni daanaka yutlaqu ala nu mu tuddati mutlaq lay doon ba nga xamante ni jàpp nga ne kafaaratul yatim rek takk yaay xale ba ci kenn déedéet benn borom xam-xam dañ koo laaj wax ji Cheikh Abu Ishaqa wax nees koy déggee moo tax gis nga borom xam-xam yi ñoom rek ñooy xamante ci seen biir. benn borom xam-xam biñ ko laajee waaw wax ji Cheikh Abu Ishaqa xooy ni wax ni li gën ci toppatoo jirim mooy nga takk yaayi jirim ba wax jooju nuñ koy déggee ndax day wane ni pour nga kafaala jirim rek nga dem takk yaayam moo ca gën mu ni déedéet borom xam-xam bi léeg-léeg da ngay xam circonstance yi muy waxee moo tax lu jarateey la léeg-léeg di nga gis benn borom xam-xam def benn fatwa fekk jamono ji mu koy fatwa wala dëkk bi mu koy fatwa wala milieu bi mu koy wala li xew ba tax mu di ko fatwa yow xamoo ko yow te loolu day def jeexintal ci fatwa bi bu ko defee fële ngay toog nag nga dal ci kawam wala ngay diw nangam diw nangam fekk yàlla xam ne ni moo nekk ci dëgg yow yaa newul ci dëgg gis nga arab yi arabi saudi madina makka judda taif misra réewi arab yi nga xam yépp daanaka te saudi gën caatar moom moom boo ñàkkee jëkkër moom moo xam daa sa jëkkër daa faatu moo xam da nga am ay doom nga ci xalikoog moom amaat jëkkër moom daanaka quatre-vingt-quinze pour cent mooy bul ko yaakaar loolu yëpp gis nga lii am fii lii am fii suñu réew Afrique yi surtout Sénégal gii du ma wax fii rek la am moom du ma wax fii waaye amul fële de loolu xam leen benn waay bu ñëw fekk jigéen ju sëy ba noppi am ay doom jëkkëram faatu mu ñëw daal di koy takk nii yooyu xamuñu ko de effectivement ñoom seeni seen seen société ñoom xamuñ loolu maanaam bépp jigéen joo xam ni dafa sëy ba mu tas wa illaa jëkkëram dafa faatu wa illaa mu bàyyi ko ay doom quatre-vingt-quinze pourcentage pour cent moom jàppal ni moom waroo am jëkkër moo tax li ëpp ci ñoom boo seetloo ku ci xës ba ci sa jëkkër faatu baa nga nangam rek boo sàggantul moom bu dee nar ngaa dugg àjjana àjjana nga koy amati kon borom xam-xam buy fatwaa ci si milieu bu mel noonu wax ji daf fay porte lool lool sax moo tax fiqhul aalim ak xam makaan bi mu nekk ak zaman bi mu nekk loolu bokk na ci li lay gën a déggloo fiqam ak ay atteem ba nga tax doo jël masala mais rek nga ni xaaral ma dem barab sàngam rek nañ ko see bàcc comme ni ñuy juumee ci masail yu bari kon buntu boobu bokk yi jullit nañ ci bàyyi xel julay bii baa nanguwuñ ko woon a may soxna ngir lan ñu bari sax daanaka duñu xam aw turam dëgg la bokk na ci saxaaba yi am na ci ñoo xam ni lii gaar yonent bi moo leen gaar sallallahu alayhi wa sallam ndax am na ci saxaaba yi ñoo xam ne ku leen xam xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen yar ba yar ba feeñ na ci ñoom waaye nag mbooloo mat fukki junni nit ak nangam da ngay gis ci biir ay mbir yu ci bokkul kon julay bii baa yaay ji ni mu la amrullahi giñ nañ ci màgg ak sunu borom kii duñ ko may soxla noonu rek ndeke xale baa ngi leen di dégg ndeke xale bu jigéen bi mi ngi leen di dégg waaye moom bi muy dégg moom xale bu jigéen bi xamut lu xew dafa dégg coow li diggante julay bi ba ak baayam ak yaayam mu daal di génn min xidriha ndax bu jëkkoon bu jëkkoon jigéen daawut lamb comme ni jigéen mel tey jigéen daawut lamb comme ni jigéen mel tey mbokk yi nañ ci bàyyi xel de lambar lambar watar watar foo wërbatiku seen jigéen ji muy génn loolu day bokkul ci doxalinu lislaam sunu jullit yi jigéen ñi tey nag noonu lislaam yi lan lañ leen di wax islam da leen a tëj dañ leen a nangam dañ leen a nangam di leen muurloo di leen def loo lii dañ leen a tëj waaye gis nga jigéen bu xamoon téye gi ko lislaam téye ci kër la ca ne ci ay avantage lu nëbb rek cher lu di kumpa rek am solo benn borom xam-xam dafa toog di jàngale benn jigéen daal di ñëw daal di koy laaj déglu leen laaj nga xam ni borom xam-xam yi gis nga ñoom ñu amoon fiq lañ fi diin waaw pourquoi islam tëj ñu ci biir kër yi ah jël jël jël baat jox ko góor góor gi mooy kilifa mooy def nangam mooy def nangam di lim comme ni ñu koy defee rek dañoo war a def égalité góor ñi lu tax jigéen ji yor baat lu tax jigéen ji rek faw mu déggal ko góor ki ratatat borom xam ni ko fekk di ko déglu rek muy wax a wax ba àggal mu ne ko am nga doom mu ne ko waaw mu ne ko ñaata doom mu ne ko am naa ñetti doom yu góor mu ne ko ñetti doom yu góor yooyu yëpp islam da leen a jël ni nañ dégg sa ndigal yow te buñ déggul sa ndigal am bàkkaar te seen àjjana ci yow lañ koy wutee waaw ñetti doom ñetti góor yuy déggal benn nit ak benn nit buy déggal benn nit kopp bala est ce que wax ji leer na subhana rabbina al aala xoolal moom mi ngi kaasa lu tax benn nit kese kese muy jëkkër ji faw rek damay sama jëkkër faw mu déggal ko pourquoi loolu léegi moom ñetti doom yu góor yëpp ay góor lañu te ñetti doom yooyu faw dañuy déggal seen yaay te déggal gi farata la bal seen àjjana nekk na sax ci leen taxta aqdaami ummahatihim mu ne ko ñett ñett ñu góor la yàlla wax nañ topp ci sa gannaaw dégg sa ndigal ba pare sas la ni la toppal ci ginnaaw benn góor loolu moom maanute la ci am wala ñàkk a maanute bi ndaw si xalaatee mu ne ko wax dëgg yàlla nag li nga wax dëgg la lii maanute la gis nga xalaat ni bu mel noonu la jullit bu jigéen bi di xalaatee chaque jour ci yeneen masail yëpp ci masail yëpp hatta min masalatul jilbaab wa niqaab da ngay dégg jilbaab niqaab lifir lifir fan yi gis ngeen ni mu xewee ci réew mi coow yi gis nga benn wax benn philosophe defe naa français la ma damaa fàtte tur bi fan yi dafa wax wax ju am solo fan yi dafa wax ñu wax ju am solo mu ni man bindkat laa te su may wax damay wax ci wàllu maandute kese parce que écrivain dafa war a respecter pilimam mu ni ci wàllu maandute jigéen ñi nga xam ne ñooy muur seen yaram ba wëlbatiku ba àgg ba ci suuf li ma mën a seede moom mooy ñoo gën a sell jigéen ñi nga xamante ni ñoom dañuy mureeku di génn te ki wax li ab yéefar du julit de waaye xam ngeen écrivain yi dafa am ñoo xam dañu respecté seen xalima moom lépp lu ñuy wax rek dëgg la ñuy seede dëgg la ñuy maan kon yu mel noonu julit ñi bàyyi ci xel su ko defee julay bii baa ndaw si daal di yegg si laaj waaw lu xew baay ji ak yaay ji ni ko ah yonent bi day kii de ñëw na bi nee na yonent sa salam moo ko yabal nee nañ ko may soxna mu ni waaw ataruddaani rasula rasulillah ah kon yéen da ngeen a fas yéene récité ndawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa yéen xamu leen martaba bi yonent bi am sallallahu alayhi wa sallam mu ni xam nga baay baay jeeg yaay ji dañu giñal nañu ci yàlla duñ la ko may ndaw si ni giñ naa ci yàlla di ngeen ma ko may wala ma génn dem ci yonent bi mu may ma ko allahu akbar mbokk yi billahi alayk ya amat allah yow jaamab yàlla bu jigéen bi yow jaamab yàlla bu jigéen bi ak ni nga xamee ngëm yàlla ni mu mën a defloo nit ki ay def def yu baax bu fekkoon yaa toog ci palaasu ndaw si nooy def sualun amiq laaj bu xóotango bu aajowoo toog nag pour wuti tontu yow jaamab yàlla bu jigéen bi su fekkoon yaa nekk ci palaasu ndaw si julay bii baa ñëw la maala wala jaaha wala bayta wala firaas wala sayaara wala wala wala amul kër amul lal amul alal amul dara daanaka ay mbokkam sax kenn xamul bu doon yow nooy def gis nga saïd ibn al-musayyib bam ne doom ja dama lay may koo may may mu ne ko dama lay may ibni abi wadaa kuy kooku mu ne ko kenn la ci samay ndongo soxnaam dafa faatu fan yi amut jabar amut dara am na kër nag waaye dara amu ko ibni abi wadaa nee na bis boobu daa woor waaye amut lum ndogoo amut lum ndogoo zeytun la jël ak mburu di ko ci cap di ko ndogoo nee na keroog dama muur sama ndogoo li sax di ko nëbb bala ñu koo gis xam ni awma dara baayam di imam joo xam ni ndaw si doomi buur ñëw na di ko labat si doomu amirul muminin doomu amirul muminin ñëw na di ko labat si mu bañ ni ko duma ko ko may tànnal ko waa joo xamante ni moom it laa maala wala jaa dara amu ko mbir yooyu mi ngi am ba tey de gis naa waa joo xam ni dafa gis ku góor ku jàmbaare ku góorgóorlu ci diine mu ne ko kaaya may la sama doom waa ji ni ko awma dara lu ma ci joxe mu génne 1000 francs ci poosam ni ko jëlal nga def ko can gi delloowaat ma ko daal di koy may xale bi waxuma dégg naa ko de gis naa ko laa wax waxuma dégg naa ko de gis naa ko laa wax dégg naa waajoo xam ni moom ak borom këram bi mu koy takk amut dara am na ñu am ay martaba ñëw di ko bëgg ndaw si bañ mu ànd ak moom yàlla natt ko ba daanaka néeg bi ñu nekkoon ca nawet ba mu tombeel ñoom ñaar dañ doon tooy ci biir ndaw si nangul ko ko ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni hada raaytu la woon wa tilka samiatu lay doon loolu jubluwaay bi mooy nga xam ni kon ñi bëgg a baax ba léegi ba tey ci suba ñi ngi jéem def ay sabab ngir jéem di roy ñooñu mooy société boo dem di nga fekk nit ñi nan war a mel du ni mel waaye nag ñi bëgg a baax moom ñu ngay góorgóorlu ba tey loolu la wala fi nan la fi ne woon jógu fi ñu ko def ne woon rek ñoo fi newul ndaw si daal di génn bal sax nag am na ci benn riwaaya dafa wax ni xanaa yéen da ngeen a tiit tiitu leen aaya alquran wàcc ci yéen di leen di leen xas ci ñàkk déggal gi ngeen ñàkk déggal yonente bi salaa sallam allahu akbar kon foofu di nga ci yégée ni kon am na julit yu jigéen yoo xam ni ah malgré ay gone lañ de waaye bëgg nañ lu baax te it li nga xamante ni moom la ñuy jéem a royee saxaaba yu sell ya te li gën a yéeme mooy gis nga muy ku góor ki muy ku jigéen ki kenn ku ci nekk boo nattee sa bopp bu doon yaay julay bii ba wala nga natt sa bopp bu doon yaay ndaw si waxuma xawma looy tontu waaye bu dee da nga tontit di nga yéex a tontu li ko waral mooy ñun ci suñu jëmmi bopp àddina rek moo fees suñu xol yi yàlla xam ne ni léegi da ngay gis koo xamante ni ki koy bëgg sax amul benn ayib amul benn ayib waaye problème mooy maadaama mu amut amut amut amut rek amut gis nga léegi mbir mi dañ ko at ci am am xanaa dañoo xamul ni mbokk yi sa yajaalu llahu baada usrin yusra ñaata nit ñoo la takk nga nekk ak ñoom ab diir amuñu dara yàlla xëy rek ubbi wërsëg yi xoolal yàlla biirum wërsëg yi yabb sutu bast bast tàllal waxul sax maye waxul sax joxe waxul sax abal dañuy yëpp sutur risque moo koy tàllal comme ni ngay tàllal ak basag moo tax nga gis nit ki jékki-jékki rek am lu bari ñaata jigéen tey ñooy ñoo xam ne bi ñuy ànd ak seen borom kër seen borom kër wax dëgg yàlla bu dee lu ñuy toppee góor amu ko bu dee lu ñuy toppee góor amu ko sama benn xarit moo ma nettali nee na ma ca ca jamono ju yàgg ja su ma ne jamono ji yàgg ja nag tekki ba ci mooy jamono saaba ya taabi ne wala ay 1900 nangam déedéet waxuma loolu de maanaam jamono daaw bi bi muy doog a tàmbali fii rek nga xam ne ay bees lan ci nee na dañoo amoon benn tuur nee na tuur bi soxna yi bari ci lool te am na ci kenn ci jigéen ñi koo xam ni ah daal xam naa ni na na na góor di taamoo jigéen daal melut noonu ñëpp di takk ay soxna rek bàyyi ko fa benn bis am ku def waxtaan xam naa waxtaan gis nga iman iman lu doy waar la iman day jékki-jékki rek déclenché rek téen jëm asamaan sa moo tax gis nga fi mu nekk nii iman moom saa bu xasee déclenché borom moom bu yebba nga sori foofu yëpp ba muytu mu daanu ci sa kaw xam naa iman ji déclenché rek mu jóg ne day takk ndaw si te ndaw si ñëpp dañ ko faa bàyyi woon daanaka te effectivement takk na ko te su fekkee juumuma ba tey ñi ngi ànd di sëy te am nañu ay njaboot te wax dëgg yàlla ki ma nettali qissa bi siqa la tegal na ci ni mu wax dëgg yàlla ku ko gis akub sëyam di nga xam ni kii jihaad jihaad dëgg la def doog a takk ndaw si gis nga xasas yu mel noonu ila yawmina hada ila laylatina hadihi mi ngi am léegi yow boo feebaree yëgal ni yow yaa feebar rek mënoo nangam léegi ndaw si daal di génn dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu yegsee daal ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man de damaa ñëw jox la sama bopp ngir nga maye ma allahu akbar yonent bi moo ko may julay bii baa yonent bi moo ko may julay bii baa mbokki julit yi ndaw si lan lay séentu ci julay bii baa yow amoo kër yére yi ñi la koy misaala ci alu sir dañuy wax yére yi foo ko fekk yére yi froissé lay doon daaw ko sax passé xam nga ni ku amul ay yére moos yére yi ñu yi ñuy xaw tuuti kon mu ngi doon saxaa ba la ñu fi waxoon zul zul bi jaaday borom ñaari yére yi diri xaw tuuti mu niroog moom koo xamante ni dem nga ba benn yére lañ nga xamee ñu ne borom ñaari yére yi diri diri yi gis nga de ndaw si lan lay séentu ci julay bii baax ndax am na alal déedéet am na kër déedéet am na fonction déedéet ñen ñoo ay mbokkam kon lépp loo xam ne mooy tax nit di taamu ab jigéen rek ci xeeti tëj fi àddina yi waaye njàngale yonent bii de léeg-léeg góor mooy ko di mat léeg-léeg nga sël góor ñu bare bare bare ñi ngi sël moo seeni rangoñ maa la ko wax góor ñu bare bare bare dañuy séen da nga leen di séen fii ñu tooy xëpp nga demee dañoo sël mu fekk réer seeni rangoñ lañ sël moo doog a génn gis nga bu fekkee da ngay taamu soxna nga taamu jigéen joo xamante ni taar baak lifir lifir jëm moo la ci dugal di nga sël moo say rangoñ te kenn du la ko wax di nga sël moo say rangoñ parce que góor ñi li ëpp ci góor ñi boo seetloo daanaka te wal ajabu min dalika nag te ma fàtte ko wax mooy ndaw si min ajmali fatayaati ahlil ansar ahlu siyar dañuy wax ne ndaw si ñu nar a may jëlay bii baa booy tànn ci dëkk bi ci misaal bu ñëwoon baatab miis bu ñuy tànn miis ci dëkk bi dañuy tànn ndaw si allahu akbar kooku moom jàpp naa ne bu fekkoon sunu jigéen tey jii la ah damay wax ne daanaka dallu julay bii ba fu mu kusum bi sax waru faa mën a teg tànkam ndax kii duma moroomam te xam ngeen ni jigéen donte nag nañ ma baal ci kàddu gi nag waaye wolof moo ko wax nag te it nag naqat neexu la wedd de jigéen bu rafetee rek réew li ëpp ci li am nag loolu la donte nag loolu nekkul qaayida boo xam ne ñan bis bu ne mooy am parce que bu la yàlla dimbalewut nit ki bu amee taar day yëg boppam foo yor fu muy romb rek mi ngi commencé baaje yu defee fi ne moom la góor ñëpp di xool maanaam yàlla gis nga jigéen ci wow yàllaa ko bindee noonu bu amee tuuti taar rek fi mu nekk nii fu mu romb rek jàpp na ne fi ne moom la ñuy xool te it li gën a yee mooy jigéen bu génne istashrafaha shaytaan shaytaan da koy tatal ah yow de yow defi ne ni yow dong la ñuy xool defi ne ni ku ne bis sax mu gees defe ne moom lay waxal loolu tabiya la boo xam ne sunu borom moo ko bindee jigéen yéen nit ki nag mooy jéem a yar boppam ci yooyu ci islam bañ yépp mu dindi ko ndaw si amal la ko taar bu jéggi dayoo waaye ànd ak loolu lépp nee na man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ma sànq am na ci mufassirun ñu wax ne ci la ci la aaya jooju ci la wàcc ma kaana al muminu wala mumina ida qada allahu wa rasulu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim jaaduwul ci julit bu góor wala julit bu jigéen bu yàlla ak bu yonenteem tëralee benn mbir ngay am choix yow nii laa ko gisee nii laa ko xalaatee su ma sañoon mu nekk nii waa est ce que parce que duñ ma may déedéet bu yàlla nee defal rek defal tey nag ci biir siira saxaaba am na ñu bari ñoo xam ne yonent bi danaan diw demal diw may la soxna rek may la soxna pour wan la ne la saxaaba yi am na ñu jàmbaare woon yéen a ngi fàttaliku dund bilal ibni rabah bilal ibni rabah kan moo ko mayoon soxna ci saxaaba ya abdourahman ibni awf yow ma di nga am neexal bu soobee yàlla tey jii waaw neexal bu duun sax abdourahman ibni awf waxoon naa ko fi de mbokk yi xool leen martaba ji abdourahman ibni awf am ci alal nga xamante ni tey ku ne yaa ngi bëgg a bokk ak moom ku ne yaa ngi bëgg a gorawanteeg moom ñu may ko bilal mii nga xamante ni laa maala wala jaaha kazalika moom it laa maala wala jaaha wala bayt moom ab noddu ko doon nekk jàkka ji daanaka bëri bëri léw kazalika boo ko toppee ci saxaaba yi noonu ngay gis ndaw si daal di ñëw yonent bi daal di koy may waaye nag yonent sa salam fay na ko de yonent bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahumma subba alayha alxayra sabban sabban wala tajal ayshaha nakaddan kadda yéen saa salaam mu ne yow yàlla suttil tawal ci kaw ndaw si ay xéewal allahu akbar tawal ci kaw ndaw si ay xéewal xéewal àddina ay teraanga ay alxayra lépp lu yiw ak i teraanga rek xoolal taw ko subb suttil sotti ko ci kawam xoolal baatab sub sottil sotti ko ci kawam te ak dundam bu mu mës a naqari nag ba mu keroog muy faatu ahlu sira dañuy wax ne gis nga ndaw sax ba ñaan nga jàllee rek sëy ba jàll ca la jóge riche riche am alal am martaba am bayre ba daanaka bi junay bi baa faatoo ñenn ci magi saxaaba yi sax dañ doon ñëw di ko labat ndax ndaw si diggante bu gàtt soppeeku am martaba ju kawe nit ñi fonk mu nekk kilifa goo xam ne kéemtaanu suñu borom la allahu akbar moo tax gis nga nag yenn sacrifice yi nag nit ki du ko def ba noppi borom bi subhanahu wa taala di ko seetaan yenn sacrifice yi yenn gore yi te it nag li gën a yéeme mooy nit ki nay sóor lu bari gis nga xeetu làgg bi jigéen ji am ba nga ne doo ko taamu yow soxna si nga yore tey bëgg ko mën naa def ba yàgg mu dab gis nga góor gi li mu yore ba nga ni soxla woo ko ci mu labat la moo tax loo ci gis gis nga ñàkk tàggatu tàmbali bidaayaat mooy feeñ ci ñàkk tàkk tàkk tàggatu nihaayaat yi gis nga sëy yi nga gis ñu dem ba mu yàgg ndog dal dal ku góor ki wala ndog dal ku jigéen ki ñu mel ni dara xewut mooy ña nga xamante nii bu ñu gisoon loola ca départ mën nañ koo jël sëy yi nga gis ñu dem ba ci biir ndog am ca nga gis kenn ku ci nekk commencé génn tànki bukki mooy ca bidaayaat ya rek soxna si dafa mënul jekki jegam yàgg jabet dal ko wala yaasu billah wala leen ñu dagg tànk bi oxon kay ñu dagg loxo bi oxon kay cancer de sein ni mu bare wala yal na yàlla musal nu ci waaye mënul am ñu daal di ko koy dagg aw weenam oxon kay dafa mënul dem ba mu yàgg mu silmaxa dab ko ku góor gi silmaxa da koo mënta dab jabet mënu koo dal wala cancer wala nangam oxon kay mënul accidenté wala yaasu billah yooyu yëpp yal na yàlla musal nu ci am lu ko dal oxon kay mënul dem ba mu yàgg ay am ay feebar ci wàllu ay yaramam ci wàllu dënnam ci wàllu ila axiri yi ci yaramam yépp gis nga nag su boobaa ci ngay xàmmee tànneef yi wala allakum tatazakkarun yéen a ngi fàttali ndaw soosa nga xam ne ci këram tëdd na ci kaw lal feebar fukki at ak juróom nekk en commun nit ñi jàpp ne kii moom sayee mu toog di ko xaar yéen a ngi fàttali ko ayuba soxnaam ya dem mu am ku des tey jii am na ñoo xam dañuy nekk seen jëkkër seen jëkkër di am di man di am di man ba xëy benn bis rek liggéey ba yàq commerce ba daanu wala ñu dàq ko fam doon liggéey ila axirihi wa yawma isin nag keroog ngay xàmmee ñi la toppoon ngir alal ak ñi la toppoon ngir yàlla wa yawma isin keroog nga koy xàmmee saye boo ngeen xam ni am na ñu bari ci ñun nag ñoo xamante ni tey jii boo xëyoon liggéeyatoo soxna yi dem de soxna it nañ xam ne am na ci yenn yëf yoo xamante ni bu la xësoon dal keroog damaa romb benn xista sama yaram dafa daw la hawla wala quwwata illa billah waa ji dafa nekk ak soxna si nekk ak soxna si nekk ak soxna si ba mu yàgg feebaru xel dal soxna si diglu leen baax xista bi feebaru xel dal soxna si mu jéem ko téye ci kër gi mënu koo téye parce que am na ñoo xamante ni faw nga yóbbu leen ci misaal rafet li wala nga yóbbu leen feneen foo xam fa la ñuy téye ñu ay feebar xel sa kulla yawmin saa bu xëyee day dem ci soxna si ndékkeeg moom xam nga mënoo faa ndékkee def fa yëpp ndékki ndékki ndékki sax def ndékki moom chaque jour sacrifice la benn journaliste laaj ko ni ko waaw yow yow kii dafa feebar feebar bu xel moom yëgul lu géej gi riir moom boo ñëwee di ndékki sax du xam ni ah mi ngi ndékkee ak yow yow looy taamu di ko ndékkee ak moom chaque jour mu ne bu xamul maa bu bu bu ma bu xamul maay kan man xam naa moom mooy kan allahu akbar yàlla xam na ni ma lii rek sama yaram dafa daw xoolal xoolal googu ko rek mbokk yi moom soxna si xàmmeewu ko ndax dafa feebar moom bu xamul man maay kan man moom xam naa moom mooy kan effectivement wala tansawul fadla baynakum bu leen fàtte ngeen ni gis nga yii xeeti gore mbokk yi dafa am solo te jikko yooyu am na ay nit yoo xam ni subhanallah alazim mas naa am ku feebar ku ma seeti koo xam ni gis nga waa ji ay at mi ngi ko tëdd feebar dafa accidenté feebar bi yegg ci méttit yaakaar naa lii may wax am na ñu ko xam ci jàkka ji feebar bi yegg na ci yaram bi yépp daanaka dafa mokk xaw a tuuti kon paralysé fi mu tëdd benn place lay tëdd benn place boobu muy tëdd day dem ba yaram wi ci boppam day commencé di futt ndax tuddaay bu yàgg ndax wëlbatiku sax bu koy def dañ ko koy defal mi ngi wax nag bu waxee ak yow nga yaakaar dara rëdalu ko soxna yi koo ci gis mi ngi jeex takk takk takk lu waral loolu di ko wëlbatee ko wëlbati waat parce que wëlbati waxuma la sax ay di ko sangal mu soxla ba mu ila axiri waaye même wëlbatiku rek su ko bëggee def faw ñu wëlbatiku yëkkati dañ ko yëkkati te loolu xam ngeen jigéen mënu ko soxna yaa ngi jeex takk waaye noonu lañ ko muñalee ila axiri ramat ba waa ji mujj faat lii man maa ci teg suma bët kenn nettaliwu ma ko yu mel noonu kon da ngay xam ni ba léegi mi ngi am julay bii baa ñu may ko ndaw si am na ci borom xam-xam ñu wax ni ci bisub jihaad bi am na ñu ne déedéet jot naa ceetal ay fan ñeneen ñu ne ci bisab jihaad bi julay bii ba ànd ak soxna ci bisab ceetal gi mu ànd ak soxnaam daal di dégg kuy woote yaa xayr allahi irkabi mooy góor yàlla yi waaj leen xare bi taxaw na te loolu moom saa bu ko jullit bu déggaan rek même boo doon préparé marchandise boo yóbbu dëkk sàngam sax fomm na yaa xayrallahi irkabi soo ko déggee même bu la fekkoon nga sëf sa gëléem ba mu fees ak i bagage ne damay dem yaman ba Sham fomm nga lu ko waral parce que dañuy jihaad kon mbokk yi julay bi ba mi ngi noonu yonent bi alayhi salatu wasalaam may ko soxna si am na ci riwaayaat ñu wax ne ci guddi ga la am na ñu ne déedéet am nay fan benn bis ci bis yi julay bi baa nekk ak soxnaam dégg yaa xayrallah irkabi góor yàlla yi war leen nga war yi xare taxaw na julay bi baa teggi loxoom soxna si ndànk sol mbubu xareem génn jëm ci xare ba am na ci borom xam-xam yi ñoo xam dañu wax ni ci guddik céet ka la ñoom sax dañu wax ni moom jot a xam sax soxna si daanaka mën naa ne jotul fanaan ak moom genn guddi bu dee loolu la métti na lool ba jéggi dayoo sax am na ñu ne déedéet ci fan yooyu la mu génn bi mu génnee ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu xare ba xare bi jeex saxaaba yi di wër nag ku faatu kenn ay jékki-jékki ba mu yàgg rek mu ne i man de gisuma sama sama waajale muy xaritam wala rakkam wala jarbaatam ñu jug wërali ko ko ndax ku nekk yaa xàmmee xam nga mbooloom yëpp ñoom mënuñoo xamandoo ñëpp kenn ku ne yaay wër ka nga xam ñu toog ba mu yàgg dajale néew yi jàpp ne yëf yi jeex na yonent bi ne hal tabxiruna min ahad est-ce que amul ku des balaa ñoo déplacé wu gaa yi ne déedéet jeex na de pour wan na nit ñi maanaam subhaana rabbina al aala moo tax gis nga am na yoo xam nattu yàlla dëgg la nattu yàlla dëgg la xoolal ba bi ba mu faatoo ba mu faatoo yëf yaa ngi ko topp hal tattaxiduna min ahad gaa yi déedéet ñun day gis nañ sunuy néew hal tattaxiduna min ahad yéen ñi fu ngeen toll mbaa néew yëpp teew na ñu ne waaw ñun koy gis nañ ñu war a gis ñëpp yéen ñi hal tattaxiduna min ahad am ngeen ku des a gaa yi ne gis nañ ñëpp mu ne laakin ni afqidu habibi julay bii baa mu ne man nag moom sabab néew lay wër muy julay bii baa allahu akbar gis nga yéen sa salam li yàlla wax bil muminina raufur rahim gis nga yërmande ji mu am kal ab wa huwa al ab kal waalid wa huwa al waalid maanaam yërmande ji bàyyi di am ci doom di toppatoo ay doomam di lijjanti seeni mbir noonu la yéen moo tax saxaaba yëpp ko bëggoon wallahi mbokk yi saxaaba yëpp ko bëggoon parce que yërmande ji foo ko takk romb na ko nemmeeku gi foo ko takk romb na ko bal da ngay dem ba xam ne yonente sa salam yow moo la gën a bëgg sax ci sa bopp faf yërmane ji mu am ci yow ah moo la gën a bëgg sax sa bopp yow
yonente bi ne jóg leen comme yéen war ngeen seeni néew ba gisu leen kenn fekk ñoom fàtte nañ sax julay bii baa
yonente bi ne kaay leen wërle ma sama waaji julay bii baa ñu koy wër yendu di ko wër di ko wër di ko wër ba dem ci benn ginnaaw montagne fekk ndekete juróom ñaari nit ñoo ko doon sot soto sot soto xam ngeen sot soto benn nit jàkkaarloog morom di xeex am mbooloo mu ñëw di ko sotle juróom ñaari nit mu rey leen ñoom juróom ñaari yépp juróom ñetteel leen nag ndax fekk na bi mu leen di rey ñoom it jam nañ ko ay jam jam xam nga loolu tamit dafa métti ah bu leen yaakaar ni ay waya waya dong la doon dajal de sabaatu min ar-rum romain yi nga xam ni xeex niñ ko manee ah ak ay nit jamono jooju même bu dul romain yi sax ay nit yoo xamante ni nga war dañ ko man xeex dañ ko man jaasi fet
ñu ngi fekk juróom ñaari nit yoo xamante ni ñi ngi ko wër
mu rey leen ñoom ñëpp moom kenn ndax ñoom doo nga fa nekkoon kon firnde bu lay war ne moo leen rey ñoom ñëpp ma nga fa bi mu paree tëdd ci seen pegg parce que jam nañ ko ay jam-jam yoo xam ne moom it mënatu la dem ndax loolu day am ci xare nit mën nga koo rey ba pare fekk yow da ngay faatu parce que moom it jam na la jam-jam boo xam amaanaat li tuuru ci deret bari na te xam ngeen nit ak nim mel surtout suñu jamono ji nga xam daanaka nit ñi moom ñoo xotee élastique ñoo bokk yam daanaka yenn xeeti deret yi bu génnee ci buñ gaaw loolu la sax nga faatu ci sa saas
yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ni ay waay sama waaji waay juróom ñaari nit rey nañ rey na leen ñu far ko rey mu ni hada minni wa ana minhu kii moom bis ni ki tey yëg leen ni ci man la bokk ma it ci moom laa bokk maa ngi bokk allahu akbar
loolu la ko borom xam-xam yi doon doon doon doon ndamoolee hada minni wa ana minhu kii ci man la bokk ma ni ci moom laa bokk sahaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee nañ li ñuy ñee ñee ñee julay bii baa keroog lañ ko gën a ñee lan moo tax ñu gën koo ñee mooy néew yi dañ leen daan jël tëral leen defar leen doog leen di suul waaye mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa jël julay bii baa tëral ko ci kaw ay luppam deret jaa ngi satatati suuf saa ngay ba jax ba jaxi ci kawam yonente bi tëral ko ci kaw ay yéreem pour wan leen leen kii seex lu ko allahu akbar maanaam ngir saaba yi gën a xamaat ni maanaam léeg-léeg di nga gis nit koo xamante ni amaana yow sax wallahi mën naan sax bu dee saaba yi mën nga ni sax ñii xeebuñu ko mën naan sax du daal dañ koo xeeb waaye amaana sax léeg-léeg sa xel dañu nekk ci yenn yi waaye njàngalam yent ni mu foore yent bi yëkkati ko teg ko ci kaw ay luppam defe naa anas ibni malik mooy nett li ah mu ne yonent bi jël ko mu ne waaji de ñee naa ko amut benn lal bu mu tëdd bu dul ci kaw lupp yonent bi moo daloon zul bi jaaday bi gis nga yonent bi yu mel nii seetlu action yi yëpp da koy def ci ñu mel noonu zul bi jaaday ne ku mooy fàttali ak faatoom la ma ca waxoon ba muy faatu lu yonent bi defoon wala lu mu waxoon lu mu defoon wala lu mu wax buñ ci donte rek baax na bu fekkente ni lekku leen ay boppi jën ba fàtte allahu akbar ay day day sàn kon xanaa man laajee lu ngeen réeree démb di ngeen ko fàtte yonent bi saa sallam dani allahumma inni qad amsaytu anhu radiyan farda anhu yow yàlla kii ci ngoon tey samay service la nekkoon gont naa gërëm ko gërëmal ma ko balaa yegsi allahu akbar yëkkati ko teg ko ci kawam moom zul bi jaa day kii day tey ci ngoon gërëm naa ko bu yegsee gërëmal ma ko
bu yeggee fekk fa ngërëm lu doy sëkk ndax ñaan ak yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di jël zul julay bii baa teg ko ci ay luppam saxaaba yi nee na ñu daal di koy gasal ba pare yonent bi yëkkatil ko boppam sallallahu alayhi wa sallam suul ko ci parce que xam ngeen ko am shahada kenn du la sang kenn du la ankay dañ lay sàng ci yére yi nga sol waaye bàyyi sa bopp ke deret jeg amul takk maanaam ki ki nga xam ne dafa dafa dafa saara ci ci ci ki kële num tuddati ci aj moom la ñuy bàyyi bopp bi ndax muuru ko woon bu dee sahaada la moom yére yi nga sol noonu lañ lay jël rek booy laat moom sàng la noonu kese wala ñu wut buñ amul yére yum sol ñu wut luñ ko sàngee deret jaag suuf saag yépp noonu lañ koy bàyyi noonu ngay démarrer lu ko waral ngir bu fekkee dafa dekki dafay gilli xet ak misk kon mbokk yi julay bi baa mi ngi noonu borom xam-xam yi dañuy wax ni ci xare boobu la faatu ndaw si nag daal di nekk jigéen ju jëkkëram faatu allahu akbar yàlla wërsëgal ko ci bayre barke alal martaba dignité joo xam ni dañuy wax ni ñu bare bare bare ci saxaaba yi dañ doon ñëw di ko labat si ngir borom bi subhanahu wa ta'ala ni mu ko defalee maanaam simila ak saala bay na tarfat wa ngone si daal di soppali ku nekk kilifa ci dëkk bi loolu di nga ci déggee ni gis nga dégg ndigalal yàlla ak bu yonenteem lii lay jural nit ki waaye jàpp naa ni julay bii baa demee bu fa bàyyeeb séddee dana nar a ndax ki ki nga xam ne yonent bi garanti na ko nii da koy suul defe naa am na la koy xaar ca fi jannatin wa uyun ca bëti ndox ya xéwal ya ci àjjana yu kawe kon ci bunt boobu nu ngi fàttali sunu bopp di fàttali mbokk yi ñu xam ni attey biti yi diw am na nangam am am du wëy taar du wëy ak wér du wëy am am ak man man du wëy sañ-sañ du wëy ndombay tànk day tekkeeku bu fekkee yëfi àddina yii mooy tax ngay taamu jigéen ji wala yëfi àddina yii mooy tax ngay taamu ku góor ki tariba dia daak dóor nga sa loxo ci ëkk waaye yonent salam bam na tànnloo dafa wax ni faz far bi daati diin tànnal borom diine moo tax imam ahmad ibnu hanbal bañ ko tànnaloo dafa wax ne ah kii de mel na nii mel na naa ci xeeti taar kii de mel na nii waaye kat bët bi daa xaw a nanga mu ni ixtartuha ala barakatillah tànn naa kooku beneen bi may jeexalee mooy li ma doon wax bis bu nekk rek ñu bàyyi ci xel jamono ji mbokk yi ñu ngi ci jamono yi fitna fitna bu yegsee yoon saa salaam dafa wax ni ki tëj gémmiñam moo gën kay wax ki toog moo gën ki taxaw ki tëdd moo gën ki toog ki toog moo gën kiy dem ki toog moo gën ki taxaw ki tëdd moo gën ki toog ndax yow loo gën a jege suuf rek loo gën a arrière rek bala ngaa birdi birdi bay àgg ci fitna ja muy gën a bari moo tax ku ku ku ay waxam jotoon la sallallahu alayhi wa sallam tëj sa gémmiñ yi borom xam-xam yi war a wax borom xam-xam ya nan ca wax jéggalul say bàkkaar te toppatoo say ayib bàyyi ayib yi ñi ca des commentaire yu bari yi faju dara parce que yow kenn dégluwu la yow kon bàyyil ñi ñuy déglu ñoom danañ wax fitna baaxul cim réew mbokk yi fi fitna masa tàkk fépp ci àddina bi ay musiba am na fa yoo xam ni nee naa la fitna lu dul jàmm soo ko amee li nga am ci ay moyens yépp di nga ko jaay pour jëndee ji ko jàmm te doo amati jàmm ja nga bëgg fexer fexer fayul fitna sa caaya mbaa sa xaftaan moo cay lakkee mbaa nga lakk caaya jàmbur mbaa xaftaanu jàmbur waaye ànd la kum dal ak teey tey dee leen fàttaliku ñaan yooyu yonent bi saa sallam di dundoon ñaan mooy yow sunu boroom ida aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayk ginnaaw booy ñaan yàlla na la musal ci fitna yi yow sunu borom su dee da ngaa namm ci sa jaam yi fitna man nga faat ma sax nag te gërëm ma tàbbal ma àjjana moo ma gënal may fekkee fitna ya buntu boobu nañ ci bàyyi xel te it nag jamonoy fitna yëg leen ni jaamu ca yàlla ca la gën a baaxee ñëw na ci xadis yokk say jaamu yàlla say woor yokk ko say woor yokk ko say julli yokk ko sa jàng alquran yokk ko say wax wàññi ko te it góorgóorlu bu baax ci lépp loo xam ne yëfi jaambur la bu ci sa yoon nekk manhaj bii de mooy manhaju ahli sunnati wal jamaa mooy manhaju ahli sunnati wal jamaa yonent sax salam nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne ay taalkati fitna lañ ay caabi lañ di tijji fitna ay caabi lañ di tëj mbaax ñooñu yàlla yàlla musal nu ci mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ay caabi lañ di tijji lu bon di tijji lu lu ah lu bon lu lu baax di tëj lu bon ñooñu yàlla yàlla defal ñu bokk ci ñooñu ñu ngi ñaan suñu borom musal ñu ci fitna ma dahara minha wa ma batan te it mu sàmmal nu sunu pas-pas ak sunu diine bu ñuy paak daje ceeg moom wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain